waaw ndeysaan Babacar ngi noonu ndeysaan waaye Sitor moo arbitre combat bi buur far déggal waya waaw waaw e eh way leen seen la seen yaaba a ah, ca dem mais buur mais buur mbër bu daawoon dégg way bi lan lay def ci moom Moustapha Gueye daan na ko wax saa yu ma déggee ay yalatu xaar ma yëkkati ko nee na koo mën a doon. Ah, runkum daje na. saaba jël na saaba jël na ko daan na ko. saaba daan na dofu jaas. waay bàyyi leen faj na dofu jaas. non waay wi. But then I